salaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye info tey ñu ngi fi ASC Notaire ci li soxal nga xam te la grande finale bu war a dox diggante jamono ak ASC jamono do ak Notaire pour xool ñaari ASC nan la ñuy waaj nan la ñuy waajalee seen final ñu ngi ni ASC Notaire ak deux supporters bu ASC Notaire grand maa ngi leen nuyu. waaw maa lay fay. la ak. Ndiaga Diallo. à quelques instants donc de la finale mu war am ngoon nan ngeen koy waajalee. waaw pare nan daanaka. waaw dañ ne réglage rek moo si des. waaw des mooy ñu dem xam na taxaw suñu équipe. ñu yëngal suuf ñu yëngal ci kaw ñun xam nga waaw loolu rek a saa daal wax ji moom jarutu mi bari daal waaw. ñu gis ne aussi ngeen de ay see boo xam te ne wàllu ambiance dajee fort trop est-ce que côté boobu pare ngeen ci tamit. waaw pare nañ ci moom pare nañ ci bu baax a baax a baax a baax pare nañ ci bu baax te bu ñu demee stade ci kanam tuuti ñëpp leen ko xam incha allah waaw. léegi le mot de la fin. waaw di xam na di ñaan ñëpp génn rek taxaw suñu ay see xama waaw lu def ko ni nga daan defee woon rek waaw yaa ma gën a xam na ñëpp génn daal jàppale ay see bi. merci beaucoup grand maa ngi lay ziar tur bi nan la. allah fay tur bi Ousmane la Ousmane Faté. waaw Ousmane wa jamono de mom nenañ euh, final bi ñom duñ duñ ko bàyyi yeen parce que gëj nañ final ta paré nañ pour jël coupe bi lool lan nga ci tontu. ñu ñoo leen gëna paré ñun paré nañ bu yàgg dañoo paré bu yàgg tok di leen xaar dañ ne ñom coupe ba rebeus ñun paré nañ yox la jëlé ko lañ wax ñu nañ nga wara jëlé jëlee li ñu moom la ñu war a jëlee ñun leen ci dara yàlla nañ yàlla may ndam xoolu ñu leen sax coupe bi fi la wara a ñëw notaire fi ici sa notaire waaw. waaw léegi instant yi mën nañ xam ngoon lan ngeen di waajal. ngoon moom lu ñu doon waajal yëpp pare nañ si si kàttanu borom bi dañuy ñaan yàlla suñ borom may ñu ndam la ndam bu sedd guy te violence bañ si am xeex xuloo yi ñaax fere bañ si am ku yàlla may ndam nga xam ne lool suñu borom moo ko def ku amul nag nga muñ xaaraat ba déwén si kàttanu borom bi yàlla nañu yàlla may ndam si kàttanu Mouhamed. waaw Ousmane kon nga tàggatoo. waaw ñu tàggatoo rek am ko rek yàlla nañ ko bool lépp mu doon jaamu moo loolu lay ñaan yàlla ko waa loolu waaw ba tey ñu ngi taxaw ki nga xamante ne mën naa doyen la ci ay say jamono donc père ñu ngi lay nuyu baal nga présenté wu. waaw maa ngi nuyu ñëpp di présenté wu di tudd maa ngi tudd Ibrahima Wat ñu gën ma xam ci Ibrahima gay euh, ma nekk euh, doomu dëkk bi doomu dëkk bi xewle ñëw sollicité ma ne ma grand dañoo bëggoon li nga fi defoon 2012. monument bi nga fi créé woon nga ñëw créé waat nañu beneen bu bees man leen comme man ci doomu koñ doomu gox bi laa ci koñ bi laa dëkk te sama waa ASC ñoo xewle te chaque jour maa ngi ñoom ñooy nekk guddeeg bëccëg euh, ma yàgg leen supporter lii nekk sama liggéey monument bu rafet bi ngay gis ni man maa ko créé ma ne pourquoi pas ñu yaakaar ne ay pono laa koy def ma ñëw indi lu bees tabax ko ba may tabax nag dégg naa lu ne ñu ngi naan grand bi li mu fiy def xanaa teen lay def chaque jour rek may génnee lu bees tey ba tey jii tey mu mel nii ah, lépp rek jamono nag moo ko waral parce que boo dëggee ci quartier ah, danga nga war a joxe bon exemple ah, tous boo mën a joxe jàppale ko sa waa quartier rek war nga ko mën a def bu dee am nga potentialité bu nekk ci yow da ko war a génnee génne bi nag mooy man lii sama liggéey la photographe la caméraman la mais damay liggéey ci wàllu aar Euh, motax ma créé monument bi diko jappalé suma ASC diko jappalé wa quartier bi di len ñaanal yalla ñu dem stade football ko ci fair play yalla may ñu ndam ndam lu sedd guy ñu ñew fété ndoko Sénégal jëm kanam ma ngi jaa jëfël ñep suñu maman yi am tam ñoy maire ASC jamono 2 di ñu dem mobilisation bu am solo maman ma ngi leen nuyu bàyyi nga présenté ak tour bi fayna la sama dom sama xarit ma ngi tuddu maire Fat Aw do non présidente jamono 2 yor ko ñeen fukki at magget jamono 2 le retroupement xalé yi ci sama yeb dekk la tuuru jamono 2 and ak wa jamono 2 def nañu ay hôtesse waa enceinte jamono 2 yi ba ma yoree jamono 2 boba dom damay sol tubay la xam lu bax du fay ñi àndoon ak man di ak man lu bax di waxanteeg ñun lu bax boba bu ñu demee jamono 2 su xalé yi football moy baye xalé yi di football tay bu ñu suñu wàccee ci terrain bi dañuy xam li ñuy wax ñu indi jom musuñoo dem te indi wuñu jom may ñaanal yàlla ancienne de jamono 2 yii waa tuuri jamono 2 yii ñoom Aïda Aram Taal Ami Diallo Ami Sankharé Ami Faye Ndégué Fallou ñoo umi taal njabootu Géejawaay yëpp rek xale yi am jom na am jom mag ñi nañu ndaw ñi nañu otos nañu bu waa noteer ëpp jom fulla la ak fayda ak fit wasalaam lii rek laa leen di wax di leen ñaanal ndam ci daraja yonent bi yàlla nañu indi coupe bi fii ci commune Baye Seye yàlla nañu indi coupe bi ci daraja yonent bi jamono. ñu leen ko waxee woon rek jugee nañu ay seen notaire bi ñu fa ñëwee ñu laa dem tam mooy ay seen li ñu mën a jàpp rek mooy tout concernant les ñaari ay seen yëpp pare nañ pour la grande finance ce réaction ñu fi tenir des discours qui sont des discours engagés mais également ñu accentuer ko sur la non violence dinañ jox rendez-vous rek ce soir incha allah au pour la grande finale